la soo. question koy. dos. Ah, moom dama dama leen def jotaay ñu waxtaan. parce que da ci am solo am rem. baax sax chère parce que moom aw ma lu leen ëpp yéen sama njaboot. on en famille waaw on <laughs> du ko noo bu jéeg sa tour bi. tour bi ngi naan keroog ñoom Vandam la doon am ak tour. mais Marème loolu ki day kaf rek loolu dafa eh, existé. chère nag avec ça. waaye ban Vandam. wallaay xanaa ñi ñoo la gëmul mais man moom gëm naa la yow doo nitu fii dëgg la wallaay yàgg naa ko nitu fii <laughs> mhm. moom daal Hercule daal moom am ñaari boru nat jox mm. bu ñu fol da nga naan Hercule moo am ñaari boru nat yow da ngay man dama mel da nga nekk ci beneen monde bu dul fii quoi chéri bul ko xeebal li non non ah waaw bu leen ñu fonto waaye ah, bul ko ko xeebal tamit non non non wax leen waxu nit kamam ah mais nee na la du nitu fii non non c'est bon dañ bàyyi loolu aw ah, lu tax ma woo lu am solo la parce que dama bëgg lu am importance bu ñu koy waxtaanee ñu bàyyi kof yu yi dégg nga mhm maram euh, dukkure dawas dafa am loo xam ne boobu sama bopp ma ci xalaat te dëgg la am ay conseil tam samay conseil ngeen te lu ngeen ma conseillé su ma ko xoolee mën naa ci tam yéen a ngi dégg sénégalais nu ñuy wax lu nga xam dama ko bëgg wax mooy dama bëggoon ngeen jox ma ci seen xalaat kenn ku par rapport ak ndax ku ne xam na ne léegi ñu dugg ci 2024 dama ne woon ni wi ni non léegi nag dama bëggoon balaa ma ci jël benn décision ma laaj leen kenn ku nekk jox ma xalaatam ba xam dama war a bàyyi wala dama war a continuer maram yow laa bëgg nga jël kaddu soo paree ñu jox Tukkure suñu mm. paree jox ki nga xam mooy Dawas ngeen jox ma ci seen xalaat parce que damay soxla seen xalaat daal maram leen nga ci xalaat chérie man foogoon naa sa sax bi ñuy woo leneen a taxoon nga ñuy mais li on en avait déjà parlé entre man ak yow comme jëkkër ak jabar ba pare ñu toogaat fi, tu ramènes encore la même question je t'ai dit yow chérie euh, rends le tablier hmm. man d'accorduma ci nga defaat un troisième mandat yu tamit chérie tu rends le tablier liggéey nga ci Sénégal lo xamné benen président du ko fi liggéey nañ ko waxta dé mais nak da fay tollu fo xamné chérie da nga il faut que nga rendre le tablier bala ñu koy sa loxo man d'accorduma je ne serai pas d'accord pour un troisième mandat liggéey nga ba paré je préfère à ce que nga joxé kenen jël fi nga comme euh, arrêté kooku jël fofu continuer mu liggéey bi mu dem mais mënoo ñiitu nguur gi chérie yow tamit bul ñiit bul ñiit bul tax ñu foqati nguur gi sa loxo ah. d'accord vraiment lool moy sa xalaat. xalaat dañ koy partagé defal ndànk rek maram dangay wax sa xalaat la noppi xalaat rek la ñu wax ah. Hmm. Euh, Doucouré lan mooy sa xalaat. dabax du ma ko jóg yow ñëwal du ma ko du ma ko jóg yow. non yow wax ma waxuma dabax yow la wax. président laaj nga mu lu am doole balaa maa ñëw ci loolu sax damay ñëw sama diggante ma ak yow bàyyi nga ni boo wàccee ma wàcc. dëgg la boo yéegee suma ma ko ci ay jamono bi ñuy wax lolé fekkon na sept ma sept temps yi ci 5 ans yi nga ko waxé kon donc ci 5 ans la tambalé am nga droit nek 3e def 3e mandat man sama xalaat man fi ma ko teg nag mooy li nga def ci réew mi président l'histoire retiendra bu doon tampon la tampon la bo xam ne nit mënu ko effacer ci aduna dëgg la pont dëgg la teer yi. dëgg la stade yi. dëgg la coupe bi. dëgg la ah président lan nga <laughs> xel mu neex na. <laughs> te it te it yaay nekk président bu fi indi coupe du monde. macha allah. jigéen di woon benn yoon. macha man de boo nekkul troisième moom jàppal ne mooy sama wàcc te sa yéeg mooy sama yéeg. dëgg la dëgg la. nekkal troisième yéeglu sa liggéey. dëgg la

parce que vraiment je bête mais machallah. mais demain transparent juste juste parce que mais on est en élection même tout ma je vais damay calculer que yow euh, Dawas nga troisième mandat. Euh, donc c'est pas mal hein. ah le plaisir est paradis. je pense que du troisième mandat mais deuxième quinquennat mais n'ai man awma droit wax ci parce que.

Mais c'est le président de président 2024. waaw loolu loolu bëgg dem balaa ñu balaa ok. monsieur le président. je pense que du le troisième mandat. mais monsieur le président je pense que du le troisième mandat mais le deuxième quinquennat Et... man que sama liggéey mooy garde président. et suma sañon nit après 2024 damay continuer di garder président. <laughs> oh yalla yalla la sa ñaan ah parce que sa ñaan yow ko xalat bon kenn ko nak bëgg bëgg la ñaan te vraiment sa bulletin bi nil la mais tax <laughs> na tuuti quoi. <laughs> mais y' a pas de souci mën nañu ko def sa bulletin nil parce que boo calculé maram néna na moom d' accordul Ducré nee na ba par tek argument yow tam né nga deuxième quinquennat. xam nga loolu cote la ba pare bëgg naa 2024 ma kii président loolu tam beneen cote la. Hmm. nag dina position bi comme dafa xaw a tolloo tuuti yow nga xaw a neutre tuuti yaakaar naa dafay dellu si nii wii ni non <laughs> am rab hmm. comme ñu ngi ci nii wii ni non bon dinaa gën a xalaataat pour xool ci sama ni ni wii parce que léeg-léeg day jékki wii bi mel ni ko ëpp doole léeg-léeg non bi mel ni ko ëpp doole mais fi mu ni nii maa ngi xool ni mu ngi ci nii wii ni non. yalla baax na léegi comme amna sen xalat xalaat mën ngeen wat ci liggéey bi le Doucouré xoolal piscine bi ni mel dooma dimbali yi di naaw ci dal ni comme ça nga nga toppatoo hygiène bi s'il vous plaît. président mu gaaw faté fàtte. loolu li laa lay faté li nga waxone yani won on on ne peut pas arrêter la pluie non plus on peut pas arrêter les yamb les yamb vol et tombe dans la piscine. waaw nga tontu ko quoi. <laughs> yaa sama waay yaa ngi sama kii damas defe naa kàmm ñun ñaar la doon xam naa code bi kaay. loo bëgg a xam lan moo tax man lu ma wax compte wu. Macky lan nga ma teg ci kër gi. Macky lan moo tax man lu wax san compte pa? ah lu nu waxtaan en intimité nga ñëwaat tegaat ko sur le banc public Macky lan la. man dama laa doyatul. xamoo lan la dama laa doyatul. Marème Marème yow laa waxal Marème maa ngi lay dégg Macky Marème ñaata yoon laa la woo. ëpp na ñett ni wini no awa ah, na wa boo gisee ma woola ba fii mosoo maa yab ci àdduna dabas yow dabas mag mu toll ni yow ngay ngay dem vacances naa damay vacances foo vacances yi jëm du ko liggéey bu nekk am na nopp bu amee nopp dama avisé man sa vacance nag laa dégg boo fi nekkul maay ibbi buntu bi maay arrosé maay dagg maay dagg garab yi maay defar piscine bi loolu dafa mën a ne yaa ngi dégg